leen nuyu waat euh, ami internetu Dakar Buzz tey nag euh, ci alxames bi ab xibaar bu tiis rek la ñu xëyee ndax dañu xamal ne rek ab ndaw la ñu fekk fële ca corniche ouest de Dakar mu ñàkk rek bakkanam gannaaw bañ fa yabalee suñu équipe nag dem nañ ba fekk ñu yóbbu néew ba ba mbooloo ba yëpp tasaaroo ca la waxeek euh, police scientifique rek ndax fekk nañ leen ñuy def seen constat ba paaka ba ñu reyee waa ji sax ñi ngi ko defoon ci ab mbuus ci lañ ñu xamal ne rek euh, ab meurtre moo fa amoon waaye joxu ñu yeneen détail nag ci lañ ñu yabalee rek fële ca commissariat bu rëbës ba ñu demee ca commissariat bi rek la ñu xamal ne waa ji fekkuñu si moom benn pièce bu ko mën a identifier mais nee nañ ubbi nañ si euh, ab l'enquête tey njort nañ ne identifier waa ji dinañ identifier waa ji teg loxo defkatu ñaawteef yàggul dara.